waaw ni ma ko waxee rek yàlla daf ñu baaxe ñun commune Ngoundiane ñu nekk équipe boo xam ne lépp lu ñu dawal fii fekk ñu xalaat ko ma ànd ak suma mag le maire Yipane Ndiaye suma rak Mbaye Sarr ak toute l'équipe municipale dirigée par Ismatine et aujourd'hui élevage bi moom la ñuy wax parce que moom la ñu moom moo xewle foraay bi président Macky Sall ci mbaaxam moom lañ ko fi tabaxe ci grâce financement UEMOA xam ngeen comme ñun ne tabaski bu jotee njort naa ne bëriwul euh, euh, euh, bërëb yoo xam ne ñooy ëpp xar ci ngunjaan pour ñu am xaru tabaski loolu nag bu amee dañ koy sant yàlla sant ko waa sew xay waaye sant ko surtout conseil municipal lu Ngoundiane mais également remercier le président la république parce que bi mu fiy ñëw en 2012 tabaski bi di doog a falu ci mbaar bële lañ ko defe woon booba li amul woon mais ci mbaaxam la ne ñii kat xereñ bi ñu am ba taxawal marché bi danaa leen jàppale booba ba léegi nag wax dëgg yàlla bu tabaski jotee fii mooy ëpp xar waaye bu tabaski bi weesoo da ngay gis jaaykat yi ci boo rombee bi di nga leen gis waaye fooraay bi duñ ko utiliser ñu bëgg nag ni dëkk yépp amee marché hebdomadaire donte xar yi ñu ngi fi tous les jours mu am bés boo xam ne dañ koy def luuma luuma mooy marché boo xam ne bés ba bés bi dellu si jaaykat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci tund bi yépp ñi nga xam ne àjjuma ña nga woon Bambey samedi ñu nekk Touba bu dimanche ñu ñëw fii ñëpp daje fi fekk fii ñi nga xam ne ñooy waa Ngunjaan góor ak jigéen mag ak ndaw lu waaye di jaay nga indi ko lal di jaay loolu koom-koom la dana tax tamit commune bi am ci ay recette parce que lépp lu nu def rek ci wàllu liggéey ci koom lañ ko jëlee kon bu ñu amee bërëb boo xam ne day yokk suñu koom da da dana yokk sunu résultat loolu moo waral tey jii nii ñu taxawaloon euh, euh, lancement marché hebdomadaire bi waaye profité ci pour indi ndimbal loo xam ne dañ ko jagleel euh, càmmkat yi ak néew du doole yi maanaam dafa am xalaat boo xam ne kuréelu maire yi ak ministère de l'élevage ak ONG bu nuy wax ay AIFER ñoo ko taxawal ñu koy wax autosuffisance des mères en mouton maanaam bërëb bu nekk buñ sanoon la nga soxla ci jur waa surtout ci xar nga mën ko tàggatal sàmmal ko sa bopp ba tax na commune bi euh, ci ay pexeem lijjanti na ba am téeméeri xar ak juróom fukk ci ñetti millions yi ñu génne yeneen ñaari partenaire comme euh, euh, direction de la solidarité nationale ak PNDL ku ci nekk jox ñu ñetti millions muy téeméeri xar ak juróom fukk téeméeri xar ak juróom fukk yooyu danañ ko jox juróom-ñaari juróom-ñaar fukki famille ak juróom ku ci nekk dana am ñaari xar xar yooyu nag dañuy bëgg muy jur bu juree nga jox keneen bu juree nga jël bu yàggee dana law ba ñëpp jot ci bu loolu amee dana dimbali ñi nga xam ne déjà avant loolu am ñi ngi woon ci càmm gi dana dimbali ñi nga xam ne bëggoon nañ sàmm waaye amuñu woon doole loolu mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla euh, dañuy ñaan yàlla mu law mais pour mu law il faut état bi dimbali ñu ci wàllu sécurité parce dara gënul metti nga am sa tuut nga dajale ko dem jël ci ñaari xar wala benn nag sàmm ko ba dem ba ci am yaakaar saay-saay ñëw bàyyi ba guddig ndar kàmm mu dem yeewi ko mun nga koy topp ba gis ko xam kam ko jaay waaye mu duggalante ak yoon ba ëpp la pexe ëpp la alal yow mi ko yóbbu ci yoon yow foofu la lay bàyyi dellu siwaat il faut ñu sécurité euh, càmm gi état bi gën ci def loxoom ba tax na bëgg nañu jàppale bu baax suñu poste de gendarmerie ñi ngi def liggéey bu baax waaye post post la mën a doon liggéeyam weesu na liggéeyu brigade waaye poste la mën a doon mu bëgg état bi gën ko jàppale ci moyen ci koom ginnaaw bi ñu joxee euh, ay ay gendarme ginnaaw bi ñu leen di jàppale tabax ki bi bëgg nañ ñu ériger ko en brigade de gendarmerie waaye renforcer ay moyens ba nga xam ne wax dëgg yàlla ñiy sàmm danañ sàmm ci seen fu bakkan te la ñu investir daañ ci mën a am njariñ effectivement parce que bu tabaski jotee euh, euh, euh, recette yu bari dañ koy exonéré maanaam du ñu fayeeku parce que day nekk ay arrêté ministère wala primature ne xar dootul fay taxe pour ñu bëgg dugg bi yomb ñun taxe yi nii am rek mooy taxe de stationnement maanaam camion yi wàcce ak mbaar yi nga xam ne moom la ñuy jox place tax de place yi waaye amul benn tax boo xam ne c'est relative à la vente du bétail ñu ciy am njariñ waaye bu fekkee tabaski bi passé na arrêté yooyu day caduc danañu permettre bu ñu jaayee xar ñu mën ci am ñaar fukk bu ñu jaayee nag ñu mën ci am téeméer comme boobu nag dana am luy ñëw ci commune bi ci keesu commune bi pour mën ñu yokk ay recette ñu mën a liggéey yeneen projet waaye dana am loo xam ne dana permettre jafe ndox yi nuy am jafe courant jafe-jafe euh, sécurité ñu mën ci investir ba bëgg a taxawal sax GIE boo xam ne ay doomu dëkk bi la ñuy doon ñooy aar sécurité ginnaaw li gendarmerie di def